Poème le cousin du prophète, paix et salut sur lui. Bismillahirrahmanirrahim. Cousin du meilleur des meilleurs cousins, ton sang ne pouvait être plus noble. Tu n'as jamais connu l'adoration des dieux en bois et en argile. né en croyant, tu as vécu en fidèle serviteur. Toi, le premier des jeunes assure le prophète de la vérité, toute ta vie lui a été destinée. Sous son éducation depuis ton plus jeune âge, tu ne pouvais être que bien préparé et instruit. Ton guide Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui, te surnommait la porte du savoir, car tu puisais en lui toutes tes connaissances. Toute la descendance du Sauveur des hommes ne vient que de toi, à qui Allah avait confié la lumière du prophète, Sedana Fatima Zara, radiallahu ta'ala Ô Sedina Ali, Ibn Abu Talib, quelle marque de confiance. Allahumma sali ala Sedina Muhammadin wa